yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi di nuyu mboolem ñoo xam nga bokk liggéey bi muy liggéeyu Serigne Touba bi nga xam ne nag si am digal man seen mbokk Cheikh du Bara Dolly maa fi ñëwoon tey ànd ak délégation bi ma àndal te ñëpp nekk ay mbokk. ngir ñëw fii barkeelu ci liggéey bi ngeen liggéeyal yàlla subhaanahu wa taala ci weeram wu tedd bi ci ndigalu Serigne Touba sëñ si mun taxa Mbacké di ko ñaan mu yàgg fi loolu te wér at mu jot ni ngi ko doon defee bu ngeen ko tàmbalee ñun ñoo waroon ànd ak yéen waaye xol bi yëpp mi ngi fi ñu jël suñu ñàkk ak suñu alal pour fas yéene ñëw jàpp si liggéey bi moo tax ñu doon fi suukar si tollal si ñaar fukki saako mu une ak ñaari paquet tendrema yi ngir barkeeloo ko ci jëf ji ngeen jëfal jullitu yàlla yi nga xamante ne bu doog jotee ñëpp fi lañu seen xel ñëw si jumaa ji comme ni mu koy defee makkatal mu karam di ko def madinatu mu ndawara di am mbégte lool di ko def at mu jot bëgg tamit ngeen di ñaan yàlla heure buñ sot buñ ko mënee def sama borom may ñu kat nu def ko ak xol bi te yàlla dogal tamit ngeen ñaanal seen borom ñu yokk ba lépp loo xam ne moom lañ sumb ñu am si ndam rek moo waroon tànk di am daal cant ak mbégte ak ngërëm goo xam ne ñu ngi koy wax ñu ñëpp ñi nga xam ne dañuy tudd tudd sëriñ ak donga yeeg ñëpp jëmee ko ci yéen ñi nga xam yéen sàmm war may Tuubaa ak barab bu tedd bi nga xamante ni sëriñ bi amul lu dul moom di kontaan loolu di ñaan ci barki weeru koor tamit ngeen ñaanal ñu yàlla defal ñu ndam ci liñ jëm defal ñu jàmm defal ñu xéewal di woo ñëpp tamit ci ndigulu sëriñ bi képp koo xam ne mën nga ko tamit nga ñëw wuy si parce que lii moom rek lañ fi am parce que jëf lu baax lañ fi am yàlla yàlla ñu yàlla xiir si def lu baax ci barke Seex Bamba Xaadimu Rasuul di leen sant di leen gërëm baax jërëjëf asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ Cheikh Abdou ñu ngi lay nuyu yaag délégation bi nga àndal yëpp ci turu sëriñ bu Bousso mi nga xam ne mooy njiitu daayira Muxaddamatul Xidma di la sant bu baax a baax ci taxawaay bii nga xam ne du ne guleet def nga ko defati ko defati ko te lépp li ko waral mooy danga cee amoon ndigal naataa nga koy tàmbali da cee laajoon ndigalul sëriñ bi bam jox la ci ndigal nga di ko def defal def lu baax nag baaxi na fu ne waaye rawatina ci barab bii hmm. di barabu seexul Khadim ndax jumaay Tuubaa kat euh, bari la taxu cee mën a def néew la teewu cee def sëriñ bi moo ciy def loo kon képp ku ci def mën nañoo jàpp ne sa jëf nangu na ndax bu nanguwutoon xel sax du ko xalaat ba jëf ji di agsi fii kon euh, alhamdulilah sant nañ bu baax suñu xel dal na ci jëf bi waaye itam nag xam gi nga xam ne say bokk ñoo ñëw futteeku liggéey Serigne Touba yow ngay nekk ci yeneen jëngu ba xel dem ci ne ñooñu kat war ngaa ñëw jàpp ci liggéey booba loolu itam dalal na suñu xel bu baax a baax loolu itam ak bokk duggaat na ci kon ñi ngi sant bu baax ci ñaari taxawaay yooyu euh, li jamono xat na lool ci yow waaye teewut la nga daan def wàññiwoo ci dara ndax li jamonoy xat-xat lii desaloo ko ginnaaw ndax mënoon nga ne damaa nekk ci xat ci jamono kat naa bàyyi ba beneen yoon waaye da xam ne liggéey bi sëñ Touba kenn du ko desal ginnaaw kon loolu taxawaay boobu ñu ngi la ci sant bu baax a baax liñ ci gën a bégloo nag mooy danga koo def rek te yàlla tax ak sëriñ bi mhm. seenu woo ci ak jàppale seenu woo ci mbirum parparloo wala lenn loolu ñun mooñ ci gën a ñor ndax fii ñu nekkat ñun day barab boo xam ne lépp ñëpp la du lenn kenn ndax lu nekk ku ne ngi ci moo tax ñun sëñu ci cey def ak par parloo waaye ndokk nag bi nga xamee loolu ba yow mosoo cee sàkk lu dul ngërmul sëñ Touba kon sëñ Tuubaa mi nga yéen sàkku ngërëmam yal na nga ci dajeek moom te mu fayal la ko barke Cheikhul Khadim kon ñu ngi lay sant baax di la gërëm ci turu Sëriñ Afia ak mboolem membre daayira Muxaddamatul Xidma di sant mbooleem mboolem ñi nga àndal ñëw fii ci barab bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf nangu leen ñaan. yàlla na ko fi yàgg ñëw ñu yàgg ko fi ànd ak moom an mu jot mu def ko Mbàkke Balla yal na la suñu borom yàggal jërë ngeen jëf. yaa xayra أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد